Mhm. ba dugg ci la fekk fa ngombe. dëgg la dëgg dëgg. Alima sama papa dafa mu ne woon bàyyi dox guddi. Mhm. ah barke El Hadj Malick. Mhm. bàyyi guddi. El Hadj yow bu ñëpp tëddee. nga dem nekk ci mbedd ma. ba ñëpp tëdd ngay tëdd ñëw di tëbbi mii rek lu ne nga dugg ca. suñu kër gi. bàyyi dox guddi gi te ñuy tey teel a tëdd. yow atelier ba yaa koy teel a ubbi bale ko bàyyi dox guddi gi. mais ñun dañoo amoon benn fréquentation boo xamante en face police bi. fanul xale bu góor waaw non yëfi xale bu góor bu guddi bu samedi jotee fa nañu toog billaay pourtant demul fenn de uh-huh. fa nañu toog taal bu gën xamut seen morom yi wusi leen est-ce que comprendre mais pourtant demul fenn sax boobu ni foofu laa ne mais dafa ne ma bàyyi dox guddi mm-hmm. ah non pas pas bi suuf rek ah euh, euh, dama bëgg a tere gars yi dama bàyyi eh, ma dem tax mm-hmm. mais nekkate yoo gis nga ci ñëw goo xamante ni dama ko bokk ak kenn alima billahi mas naa ànd ak sama gars yi ñu dem toog attaaya ba une heure du matin deux heures jàpp trois heures ñëpp tas gars ah, ba dem waaye ba dem incha allah ma wàññeeku di dugg sama kër te bu may ñëw foog ma am ay briques yu ma teg taxaw ci yoxeelu te nekkate am na séeréer bi dëkk ci biir ma nga ca robinet ba xaw ma la loolu ubbi gis ma ma yuqamtiku gis ma ma yuqamtiku mu yaakaar ni am sàcc la nga de man daal ba fi ma yooree sama tànk di wàcc bu ma déggee kuur gi diir. man dama wulbati xam nga ñun séeréer dañoo ñàkk ñàkk. dama wulbati ko waat na ko yow yow mën nga dóor man a caam man caam. sàcce man ko du sàcce man la caam. yow yaa nga bala nga a caam xam laata man xamee man. man man kuur gi man bu ma ubbee buntu kër gi moom ma fekk nee ma toog. ba <laughs> ma fekk nee ma toog man mënatuma jóg ma ndax boobu ba ma wàññeeloo lépp laa ko jox lépp laa ko jox. non non non ci la. te xam nga ñun séeréer bu ñu dóoree day dal dañoo ñàkk caam. ca laa billaahi ca laa jugee foo gars yi waxtaanee ba 23 heures daw naa mooy dëgg. billaahi daw naa sa papa la ma la waxoon ñëw na. billaahi dama dama loolu lu ma jàpp dama koy bàyyi. dem tëdd dama dama dama dama alaaji man ko naan bi ma del teel tëdd. waaw ah, dëgg de kon say naw la kon say naw la yi. mais fu fu ma nekkee ba gars yi tëj ko ñu dem pour ma wax la ni la. waxi mag dafa nekk loo xamante ni nii. bés boo ko sànq ne rek gis ci dara moo tax moo tax mag ñi daan wax mooy wàllu mooy wàllu réer aywa xanaa déglu ma la. li rek a doom ci loolu. eh alléna ma dund naa ci yoo xamante ni kaan nag ma wax la ba may xale tëdd mooy wàllu réer jóg. dund naa ci loo xamante ni nii billaahi wal kitaab bi la koo nettali. Mhm. te lépp rek sama papa traité woon nañu ko woon na ma alaaji bul def lii ma dem sangu loolu. Mhm. dafa am sama benn doom baay boo xam ne Ablaye Thiam la tudd mi ngi mi ngi seetaan. Mhm. danoo dem këram euh, danoo def sa guddi dañuy dem di wuti carton. dañuy dem di wuti carton pour jox ko xar yi pour bu ñu nee daggal xar yi. bu nu fa la bu nu yeewoo suba nga xam dañu fa nekk di daggal di daggal xar yi dañuy dem. ba ba ba si yàgg ñu fekk ñu dàq benn sàcc. li nga de. gars yi nañ jàpp leen fi nañ jàpp leen ma ci sànni carton ya na di nga dem. di daw barke yonent bi nekk te yoo sama papa nga ci àngal koñ bi di ma seet. Eh. billahi di ma seet di naan ci àllaaji fa la nekk ba bi man daal fi ma fu mu ne yun bi siin ma may daw di ñëw mu ne kii caam la xaaral. ah man billahi papa daal fi mu dem ba may teg ak ban may delloo benn. ah waay waay waay. barke Serigne Babacar moom moo dul ko kon guddi googu dañ ma ba ma ni waa lii allé ma xamoon ci laa bàyyi dox guddi. te buñ la buñ la tere woon nga toog loolu du la ci fekk. loolu yëpp du ma ci fekk. sama grand frère ba nekk ci kër gi du génn. buy timis muy fatoo ak njabootam mais man rek ngay gis ci kër ga may dama ak guddi du ne ma dugg ca noonu nit a xam boppam. waaw pour xamal ne nii euh, euh, euh, waxi mag dafa nekk loo xamante ne nii boo ko wàccee yoon wa rek. gis musiba gis sa musiba. Mm-hmm. waaye léegi sànq dafa am benn code bu ma duggoon. Mm-hmm. alima bëri na fi ay mag yi fi nekk dama yàlla baal ci jéggal ma. Ah. kuy dégg seen i wax yaa ngi ci erreur de. ya xamul ni seetal. Mm. ku boroom këram faatu. bu nu njëkkante fa di wékk fa say mbaraakis seen i mbaraakis. wala wàññiwul barki yonent bi am na ci mag ñoo xamante ni ñu ngi fii ci réew mi na ma yàlla bal te jéggal kenn war leen a déglu la ñuy wax am na mag ñoo xamante ni jàngunu nu génne lu baax seen gémmiñ dëgg la lu baax du nu jëf la du nu ko jëf sax seen i njaboot mhm. seen i njaboot sax nawloowu leen dëgg la ana ku dem ba am sa baay nawloo too ko am na lu xew ku ci dem ba na lu xew te mhm. problème yooyu gars yi koy dund fii ci guddi yu nu toll dañu koy dund tey tey foog nu xam ni donte ko waajur mu baax mu bon waajur la dëgg la maa ngi dégg sax ñu naan am na ci loo xam ne bu la ko yónnee sàngara sax dawal nga dindi ko jox ko ah. loolu d'accord nañ ci waaye na fekk koo xamante ni dina la man a jox sax ca koñ ba nga dëkk na la jox suturaal ca koñ ba nga dëkk na la siggil ca koñ ba nga dëkk mhm. waaye ji boobu lañ soxla dëgg la mais man damay des ba tey ci euh, ci koñ bi mhm. yenn saa yi nga gis benn maire boo xamante ni am Kumba Sall lay doon ci koñ moom mooy jugé ñëpp mhm. doomu jàmbur yëpp moo leen di jugé ah, mooy toog ci buntu kër gi diggante ndékki añ reer lépp ci mbedd mi koy fekk xale bu jigéen bu feebar romb ko yaayam jiital ko yóbbu hôpital sax mu ne xale bi ëmb na. Eh, na bi te moo ne mag la. Eh, bàyyi ma yow. yenn saa yi nga gis eh, maire boo xamante ni ci toogaayam boobu mu toog ci lay jàngatee kër jàmbur yëpp pour wax ne kër Alima li fa xew. kër Youssou li fa xew kër Massamba kër moo koy mooy jàllale message bi. mooy jàllale loolu. boobu mag tamit li Thiamas wax léegi jarta déglu. dëgg la Alima xam nga li nga wax léegi. li loolu souvent ci ñun jigéen ñi la yàq xam nga surtout maa ni ñu dëkk suñu dëkk waaye léegi immeuble yi. Mhm. dëkk ci immeuble R plus 4. appartement yi bari lool comme fa ma dëkkee laay wax. Mhm. xale jigéen dafa sëy da gis ku xëy rek sëy si. nuy si la ne mère man maa dëkk fii. dem ci xadi kamara xadi kamara moom moo fa nekk moom yaay jaboot. Mhm. moom mooy rek moom mooy régler sëy yi. mooy régler situation yi. mooy wax lu baax mooy def lu baax man dama ne xam nga man damaa. xaw a ragal man damaa xaw a ragal sax nit ñi ndaxte. xam nga location dafa doy waan ndaxte koo dugg sax mu xaw laa ragal. moo tax man comme ñun ay ñeeño lañu te kër gu mag lañu xam moom waaye jëkkër moo lay jël yóbbu la foo xam ne nii da nga fay dëkk keneen ñëw dëkk ma Massamba dëkk ku ne dëkk mu nekk loo xam pëcc xoola man damay xaw a ragal. loolu moo def sama jikko damay xaw a ragal bu baax a baax waaye bu ñuy dëkk dataa di dëkk di dëkk sama yaay danaan boo dëkkee si kër da ngay dem nga nuyoo ji. waaye boo nuyoo jee ngeen di saafonte bu ñu rombee nuyoo salaamaaleykum mère maa may gis maa dëkk fii ni sa waa. xeetu mag yooyu moo tax nit ñi ragal léegi muy xadi kamara. moo tax nit ñi ragal léegi. xale yu bëri nekk nañ fa ñoo xamante ni bu déggee kër ni tux rek mu daw. defar su ma ko ne waa xadi mu ne ma caama appartement yi ay xale fay say boo déggee dara da ngay dem. boo demee fekk lu ko nekk nga séparé. wax ni kii toogal kii bàyyi comme kere bi kooku di xuloo jëkkër da di jëkkër jigéen na nga dem. bàyyi fa jigéen ndax jigéen làmmiñam la am xam nga mag ñu baax na. Mm. waaye naan ko bu la ko defee def ko. naan la bul nangu yenn yi bul nangu yenn yi gis nga am na ji naan la góor kenn du ko may léegi gis nga man du ma boo demee sax amul jëkkër waxuma sax mairie am na sa morom yoo xam ne ci koñ amul jëkkër am na sa morom yoo xam ne dañ lay fekk sa jëkkër di naan di màndi ñun la kii bu doon man te fekk boo koy bàyyi bu koy jël yenn saa yi ñu fekk la góor gu baax sax boo xolat boo koy bàyyi la ko ñëwee rek booy bàyyi mandikat boobu moom moo koy jël ndànk sang ko yow nga naan fu ma jëm. ala koy wax problème jëkkër la am. mère ba jëkkër la am kenn seet ah, man yaa man lépp dafa ci man. sëy bi néeg bi loolu yaay bokk ci baay bokk ci maa koy gérer. yaa yaay eh, jëkkër amul ah, waaw jëkkër amul. waaw jëkkër amul sax nag. bu fayee ku la gën a baax bopp. ñu récupéré sa jëkkër sëy sëy. dëgg la man la jëkkër aadi. bopp gis ku la gën a baax la bopp ñëw récupérer sa sëy téye sa sëy. sëy sëy ah di jëkkër amul xanaa jëkkër waaye Dakar gi jëkkër amul. alaaj ji su jag jëkkër amul de réew mi. <laughs> bilaay ci rajo bi Cheikh Sarr nee na faru rab sax dafa manqué. a a <laughs> kii diw mooy génn ak diw fu mu amati. kenn génnul fenn. jëkkër amul. dëgg la daal di jëkkër am moo tax bee. nii rek mooy ngopp rek nii rek. yaa yaa yaa alaay de amul de surtout maa jëkkër géwél. maa jëkkër géwél. waaw jëkkër géwél yombul damay. ah ni jëkkër amul ci réew mi fi nekk ni jëkkër amul. yaa ngi ne ban moo gën a jafe. jëkkër géwél jëkkër géwél waaw. kooku baax jëkkër géwél yombul de. jëkkër géwél yombul de. barki Rasuul laay xoolal yombul dëkk la géwël yàlla mu doon Moussa Mbaye wala Moussa Seck ah, wala Moussa Maari Moussa Thiam Moussa Sam Moussa Thiam Moussa Thiam ah, wala Moussa Gueye dëkk la géwël yéen yéen a ngi dégg ndax yéen a ngi dégg dëkk la géwël yombul Moussa Thiam yéen ñu jot a am géwël ndax ah, yéen a ngi dégg dégg leen lu mu am jox la laay ndeysaan lu mu xam wax la. dëgg la buy dem ànd ak yow. ñeme jëm bàyyi ànd ak yow. na la reetaanal ma. waaw xoolal xoolal ma sama bopp xam nga damaa pata. da njëkk ni xoolee ma nee ginnaaw pata puuf. walaay ndeysaan lii mbagoor mi rek la am. walaay dëgg la. Eh, nga yëpp daje di waxtaan. di kaf di foo di ree lii mooy Sénégal. Mm-hmm. lii la ñu am lii la xam ñu ñaan jàmm ci ci ci ci fépp. du nuyu bu baax a baax a baax Mati Jugo nday Mati séeréer la ngay taw ndeysaan ah, Mati Jugo waaw bu la mën yaayu ko yaayu euh, guuña yaayu Mouhamed yaayu guuña yaayu Mouhamed yaayu Serigne Saliou ah, jigéen ju baax kooku guuña a bàyyam tudd Lamine Ndaw mi ko jox transfert boobu sànneen alfaxam ci ndam bi ak sànneen a Korfal ah. nday Mati moomu baax gën Bitiñe say yaayam ummee yaayam mari sekkay maamam Samba Coro Fall ak Samba Jéy la ñaf ko koy madam Kor Lamine Ndaw nuyu ko ku baax nuyu ko ku baax moom it di ko xamante